allo. Tanor ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar bu baax Mbaye Babacar di yor sa voilà di leen wax ne ñu ngi ak euh, Tanor bu Diourbel. Euh, waroon na bëre ak ki nga xamante ne bii mooy Santa Gningue bu Mbour mais pratiquement Santa dafa dugal li nga xamante ne bii mooy médical wax ne mënatul a bëre Tanor bi nga yëgee information bi euh, naka nga ko dundee ak lan la def ci yow. waaw nekk na information bu tiis wax dëgg yàlla bi ma ko déggee déggee wax dëgg yàlla su ma yeboo ne ba dafa bëri na daal du ma kiiwee daal mais nag teewul lañ koy sant yàlla bu baax a baax a baax. Hmm. waaw lañ hmm. koy sant yàlla bu baax a baax ndax lépp lu yàlla def rek xëy na moo gën ci doomu aadama. Hmm. waaw préparer combat ba mu des deux jours daanaka ñu la combat bi amatul neexul. Mhm. surtout ma làmb bi dañ ci daj ay coono parce que yàgg naa am ay combat di ko waaj mais làmb ji def ci réew parce que làmb doon na def ay préparé combat di liggéey mais làmb ji dama arrêté sama activité yëpp concentré wu ci làmb ji. Mhm. moo waral bu demee nii day métti trop trop ci man. Mhm. ak këyee bëri bi par rapport bëggoon naa wane aussi sama bopp ci bis bi. Mhm. waaw bëgg nga wone sa bopp ci bis bi waroon a bëre ci bis bu mag diggante Tapha Tine ak Boy Niang euh, yéen yéen a waroon a bëre avant Tidiane Faye ak Aliou s Junior di bëre. Euh, Santa comme ni ma ko waxee sànq dugal médical ne ne ne ne ne mënatu la mënatu la li nga xamante ne bii mooy mooy combat bi yow lan ngay wax Santa. waaw di wax ne fii moom <clears throat> yaakaar naa lim yaakaar ba xaw ma lu ko dal xaw ma am na wala amul daal mais fekkee am na it moo ngi koy ñaanal suñu borom defal ko wër. Mhm. su fekkee ne dafa yaakaar ne combat bi dafa desee jekk yaakaar naa bu ñëwaatee day gën a metti ndax fii moom dañuy dabale li fi nekkoon rek. Mhm. incha allah bu ñëwaatee day gën a metti. Mhm, waaw ndax duñ bàyyi ndox du bàyyi yoonam. ndox du bàyyi yoonam. waaw. Mhm. parce que yaakaar naa ne moo ko wës jàmbaar defoon na lu mel nii pousse combat bi mu ñëwaat mais nag euh, li tanoor du wës jàmbaar de. est-ce que kon nekkul euh, ni koy waxee defoon nañ ko daaw fekkee déwén dañuy baaxantal comme que defoon na ko ci kombaam ak euh, wës mu jig ko est-ce que nekkul loolu la bëgg a defaat wala gisoo loolu. waaw mun na nekk mais wës mbëru gox la xëy na. mbëru mbëru mbëru mbëru dëkk koñ la quoi laay mën a mais man mbëru dëkk laa. Ah. man su may dem sa waa Jurbel ñoo may waajal samay mbokk waajal moom man ak wës si différence. Ah. bokkuñu man ak moom. Ah. waaw. Euh, sa entourage biñ ko yëg biñ déggee information bi doon ko dundee. non dafa métti trop dafa métti na trop parce que ñu ngi presque fi mu toll nii boo xoolee Jurbel sama gars yi nekk foofu ay Papis Ndiaye sama gars yi waa fan si club bi aussi. ñu ngi doon mobiliser mobiliser bu doy waar. di euh, nuyu aussi autorité yu nekk Diourbel yëpp maa ngi leen ñoom ñëpp parce que wax dëgg yàlla. Uh-huh. am na ñuy jot a réaction am na ñoo xam ne ñu ngi doon waaj a def réaction aussi. Uh-huh. mais am na ñu jot a def uh-huh. waaw ku ci mel ni Malick Fall def na réaction ku ci mel ni sama DG Moustapha Gueye def na réaction. ay pas bu bëri na daal gars yoo xamante ne même. daam Diop ñu ko doon xaar naroon na moom def mobilisation bu am doole jóge Diourbel ñëw Dakar. waaw parce que ñun amuñu lenn lu dul Jurbel kon bu ñu amee bis waa Jurbel dañ cee war a waaj comme li ma la rek ñun mbaru dëkk lañ. Hmm. waaw bu ñuy génn drapeau dëkk bi lañu ñuy indi kon waa dëkk bi dañu war a dooleel mobiliser ñu comme aussi. Hmm. waaw. Hmm. Euh, yow combat bi heure buñ ko jàppaatee rek yow pare nga. combat bi bu doon suba sax man pare naa comme li ma la rek dama la ne fi mu toll nii xëy na. dafa yaakaar ne mun naa yaakaar ne dafa dese jekk mais yaakaar naa ne buñ ko biisaatee day gën a jekk yow ngaa da gis ne dafa jekkul moo tax mu dugal médical bi man loolu laa gis mais nag xaw ma parce que aussi nit doomu aadama aussi mun na nekk aussi xëy na feebar mais nag bii mooy deuxième fois mu koy def mhm. waaw te yaakaar naa ne am na ci loo xamante ne nii mënoon naa ñëw rek <laughs> waaw. waaw ngeen jëflante mu jeex ku ci nekk jàll ci leneen. waaw mënoon ñëw rek ñu rafetal journée bi rek kenn ku ne dem yoonam. Mhm. ndax liy xew moom yàlla def na ko pare. Uh-huh. waaw. Uh-huh. Uh-huh. looy wax say supporters ak uh, amateurs yi làmb yi. waaw di leen wax ne man namoon naa leen namoon nañ ma. léegi nag uh, bis bi comme demee na nii. ak ni nga gëj a bëree tamit. waaw ñu ngi gëjoon a bëree mais ñu ngi fi ñu nekkoon aussi comme du ñu bàyyi liñ doon def. fi mu toll nii moom combat bi moom même bu rombee sax duñ fi mu toll nii combat bi comme ñun làmb mooy suñu métier amuñu lenn du làmb lépp ñu am làmb moo ñu ko may. dañ ciy tegaat sunu tànk dolli liñ doon liggéey comme li ma rek. Uh-huh. affaire moom su fekkee day moytu lu tàng la muy jéem a moytu su ma waatee dafay fekk lu gën a sappaaral yaakaar naa. loolu gën a tàng la fiy fekk. waaw waaw di siyaar aussi waa Diourbel yëpp. mais mais Santa tamit nekkul nekkul ñeexum ñebe ma nga xamante ne bii xale day ñëw rek saax saaxee ko dem yoonam. non yow xam nga ne Santa moom xëy na làmb ak gëj a bëre moo ñu boole rek mais man sama palmarès boo ko xaajee yoon sax victoire yooyu amu ko. mais Santa la jiitu ci làmb. waaw mais jiitu ma taxul fii làmb ñu fi mujjee ñëw ñoo ñoo wane seen bopp làmb du ci dara làmb moom xale dina ñëw léegi sax def loo xam ne mag defu ko loolu du ci dara. Uh-huh. waaw làmb ji moom liggéey rek ak gëm sa bopp looloo fi ne. nga fàttali ma ñaata combat nga def. Euh, man am na 17 combats. 17 uh-huh, combats 14 victoire waaw 17 combats. 14 victoire 2 3 2 défaites. 14 victoire 3 défaites. waaw 3 défaites waaw. Uh-huh. loolu la ah. maa ngi dégg maa ngi dégg euh, nga ne ma li la hmm. gënaloon mooy bu bu bu làmb ji jàllee Thialis def ko grand combat andil la ko biir Diourbel. Hmm. waaw loolu laa bëggoon parce que lu mel noonu parce que man su ma sañoon wax dëgg yàlla dëkk bi comme ñun mboru dëkk bi la Thialis aussi promoteur dëkk bi la. day rafet mu ñëw indi ñu Diourbel sunu dëkk. Hmm. ñu wane sunu bopp comme ni ko Modou Anta di defee comme ni ko keneen ak kenn di defee. comme moom doomu dëkk bi la te wax dëgg yàlla aussi di mention spéciale Pape Thialis. Uh-huh. mention spéciale wax dëgg yàlla moom it mu ngi ciy jàpp. bu uh-huh. baax a baax a baax a baax. Uh-huh. mu ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax. parce que bëri na sa combat ya nga xam ne moo ko tëgg. waaw waaw bii mooy sama quatrième troisième combat yoo xam ne moom moo ko tëgg. waaw. bii mooy sama troisième combat boo xam ne moo ko tëgg wax dëgg yàlla. Tanor ñu ngi lay jaajëfal. waaw di la jaajëfal Mbaye Babacar di la bëggee yow Mbaye Babacar bu baax a baax nag. jaajëf. di siyaar ñëpp di leen jox seen wàcci waay di màggal autorité yi ñëpp ñëpp Diourbel yëpp maa ngi di siyaar di siyaar Issa Maram seen sama gaay yëpp maa ngi di bëggee. Uh-huh. waaw di leen màggal bu baax a baax di leen wax ne ñu ngi ci kawam rek. yokk cere dolli ñeex. jaajëf mbër. ok merci mbay Babacar.